mbàkke borom alxuraan sëriñ abdu salaam mbàkke mii nga xam ne diggoog lool sunu borom bu lay seetal day mel ni ku jàkkaarloog seetu di la wax ci sa ay mbir mën bayre lool dalay defal bayre ba ku jàkkaarloog yow rek bëgg la fa saasa ku ba képp ku la gis dalay jox cofeel am na ay xeetu ndomb yoo xam ne lépp looy xëccoog doomu aadama rek yaay nekk ca kaw ah sëriñ abdu salaam nag bàyyiwul benn yoon waa bitim réew yow mi nga xam ne ay kayit rek mooy sa yitte yow mi nga xam ne sa yoon dangaa bëgg leer naññ dawal gaaw seeti sëriñ abdu salaam mbàkke jëkkër nga bëgg sëriñ abdu salaam daf la ciy defal ay ñaan yow mi bëgg soxna te muy sa yitte lool sëriñ Abdou Salaam daf ciy def ay ñaan moom mii di sëriñ Abdou Salaam nag nee na du ma bàyyi benn yoon ñi nga xam ne dañoo am feebar ndoxum siti hémorroïde wala sax nag ngóor a sonn la lool nee benn pot laa lay jox meew nga ci def tàngal ba mu tàng jër daal di koy naan rek sa lépp faju képp koo xam ne bëgg nga sa ay aajo faju rek dawal gaaw nga daal di seeti Serigne Abdou Salam Mbacke Dakar Guédiawaye marché Sam numéro téléphone bi di 78 433 78 78 Serigne Abdou Salam Mbacke kéemaanu yàlla rek la. ñu door revue de presse bi doore ko stade yéene kay ñancoo Sadio Mané Kylian Mbappé ba ci Lionel Messi la poule ga le journal bi fësal wu njëkk wa face best bi nag xam nañu ñi nga xam ne ñoo koy xëccoo moo tax journal bi nee na est-ce que ñancoo Sadio Mané dina mën a kujjee ak Kylian Mbappé ak Lionel Messi la poule ga li ko waral moo di Sadio maane géej naa dugg ci terrain football ndax dafa am blessure te coupe di monde ba demu fa woon ànd ak réewu senegal bu dee Kylian Mbappé ak Lionel Messi ñoom dem nañu ca coupe di monde ba doxal rawatina Lionel Messi la poule ga moom la ñu tànn mu doon ki gën a xarañ ca coupe du monde boobee moo ko dem di Argentine bu dee Kylian Mbappé moom réussir na coupe du monde boobee ndax doxal na dem na ba ca final ba waaye ci ndaw ga da koo ñàkk kon ñancoo Sadio Mané est ce que mën naa xëccoog ñoom ngir trophée sa best bi loolu la surnal bi samp comme laaj yéen it maa ngi leen koy laaj ci commentaire yi surnal bi tamit ñëw na ci CHAN bi nga xam ne tey jii la ñu koy door ca réewu Algérie waaye bu dee équipe nationale loko bu Sénégal ñoom suba la ñuy football Côte d'Ivoire la ñu war a jàkkaarlool match boobee 19h lay door askanu anaba gépp nag ñoo ngi ci ginnaaw équipe national bu Sénégal anaba fala la équipe nationale ba dal fa lay footballer ay matcham waaye journal bi tamit ñëw na ci Ligue 1 bu Sénégal rawatina ci club bi ñu naan Sonacos Sonacos nag pàcc gu njëkk gi réussir na ko maanaam xaaj gu njëkk gi jëm ci Ligue 1 bi jamono jii nga xam ne ñoo ngi ci trêve dem ca CHAN ba ñoom ñoo ngi ca cinquième place ba maanaam ca juróomeelu place ba te jamono ji nag club yu mag yi nga xam ne ñoo nekk ci Ligue 1 bi yabuñu ko ku mu ci dóoru doo ko dóor kon nag pàcc gu njëkk gi réussir nañu ko muy waa Sonacos ñu jugee stade de yéenekaay dem groupe Futur Média fekk fa record yéenekaay ñancoo Sadio Mané le journal bi fësal ca wu njëkk wa samp ab laaj ndax Sadio maane dina mën a bokk ci match bu njëkk bi nga xam ne war naa dox ci diggante Bayern de Munich ak Paris wara am la 14 février loolu la journal bi sampo comme laaj li ko waral moo di dooraat na entraînement yi te jamono ji nag waa Bayern de Munich am nañu yaakaar ngir mu bokk ca match boobee wàccil si tamit ñoo ngi ci journal bi rawatina Kalidou Koulibaly démb Fulham la ñu doon jàkkaar lool waaye dañoo nërmeelu ñaari bal ci benn la leen Fulham dóor doomu Sénégal bi doxal na ca match boobee dugal na ca ab bit waaye ca cëppaandaw ga dañoo nërmeelu ci kanamu fulam Aziz Ndiaye yit mi ngi ci journal bi moom nag coow li ci lay wax mu di lan Balla bi mu daanoo ak tey jii ñëpp ngi naan loxo Yékini génnu ci waaye moom génn na nee na loolee yoonu Yékini nekku ci daanu moo ñëw Balla Gaye daanu kon nañu bàyyi Yékini mi ñu ciy tudd takkewu ci laalewu ci Aziz Ndiaye moo yëkkati kàddu yooyu surnal bi tamit ñëw na ci super coupe d'Espagne bi final bi nag classico lay doon li ko waral moo di démb Barcelone dafa am ndam ci kaw Betis Séville bu Youssouf Sabali match boobee nag tàngoon na jër waaye ca tir au but ci la ñu ko kon Barcelone fekki na Real de Madrid ca final ba final boobee nag dimanche nañu koy amal. ñu jugee Sénégal wutali Londres Angleterre fekk fa Mirror Sport waa Chelsea rawatina Joao Félix le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa démb nag dañu ko dalal ca Chelsea dafa départ titulaire bi Chelsea di jàkkaarloo ak Fulham waaye match boobee nag doomu Portugal bi yeggaliwu ko li ko waral moo di dañu ko jox carton rouge ci action bu dangereux boo xam ne def na ko kon nag moom matcham bu njëkk. carton ruus la ko jeexalee waaye jamono ji nag Chelsea googee ñoo ngi ci ay jafe-jafe ndax kat ca Premier League ba ña nga ca fukkeelu place ba te jamono ji nag Arsenal mi jël pee dix-neuf poñ la leen rawee te bi saison bi dooree ak tey jii vingt-cinq poñ képp la ñu am muy waa si kon nag ñoom soo moytuwul maintien la ñuy football maanaam deferaat seen toogaay ngir bañ a wàcc naam démb bi ñuy jàkkaarloo ak Fulham jéem nañu ba sonn dañu leen mëne woon bi ñu mitanwee ba dellu siwaat doxal tuuti ci la Kalidou Koulibaly égalisé waaye ci cëppaandaw ga dañoo daanu jël bu métti waaye jamono ji moom wut place ngir dem Europe moom bu ñu gaawtuwul tuuti rek mën mën nañu koo ñàkk muy waa Chelsea bu Edouard Mendy ndax ñoom bu ñu xaymaa fukki match ak benn yi nga xam ne moom la ñu mujj football am nañu ca sept défaites moo xam Premier League la Ligue des champions ak coupe yi nga xam ne ñoo ngi koy mën capitaine Manchester City bi tamit moo ngi ci journal bi muy Gundogan moom nag ma ngay wax ci club boobee nee na jamono jii nag gone yii football fii dañoo taayal te dogu wuñu dara ndax kat terrain bi boo ci duggee da ngaa war a jëmbat fulla match bi nga xam ne ñoo ngi ci doon jàkkaarloo Southampton laata muy ñëw xamoon naa ni dañu koy ñàkk ndax gone yi doguwuñu te fii nag kenn mënul kenn boo duggee ci terrain bi da ngay jëmbat fulla doxal am ndam soo ko deful rek gaa ñi dañu lay bett kon li ma leen di ñaan moo di ñu jëmbat fulla te gëm seen bopp Gundogan moo yëkkati kàddu yooyu. ñu jugee Londres Angleterre wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéenekaay Ter se Stegen la surnal bi fësal ca wu njëkk wa super classico pour la finale finale boobee nag. classico lay doon li ko waral moo di Barcelone fekki na Real de Madrid d bi Barcelone ak bêtise kenn du ter te gën ndax doxal na ca biir match ba ba ñu demee ca tiir au but tamit doxal na waaye laata ñu yegg ca tir au nag ñaari gone yi dugal nañu bit yu rëy muy Ansu Fati ak Lorraine ñoom ñaar ñooñee ñëpp nag seen bit yi dafa rafet lool match bi 1-1 la ñu dem prolongation kenn ku ne dugalaat ca prolongation ya ba ca tiir au but ya ci la ñu teqalikoo waaye trophée sa best bi tamit xam nañu ñi ñu tànn ngir ñu jël ko journal bi nee na Liga Santander bi nag am ci juróom ñaari jour moo xam góor ñi la ak jigéen ñi bu dee Real de Madrid am nañu ca ñetti joueur ci góor ñi bu dee Barcelone am nañu ca benn joueur ci góor ñi muy Robert Lewandowski bu dee ci jigéen ñi waa Barcelone am nañu ca ñett ñoo xamante ni bokk nañu ci trophée sa bi soo ko boolee nag mu nekk juróom-ñaari joueur yoo xamante ni bokk nañu ca mu soxal Liga Santander bi loolu la journal bi xamle ñi jugee Marca yéene kaay jël AS yéene kaay Ter Stegen ak Pedri la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa Super Classico classico bu ngande la ñuy xaar dimanche di dox ci diggante Real de Madrid ak Barcelone waaye journal bi nee na waa Barcelone nañu sant Ter Stegen ndax démb doxal na ca match ba te bi ñu demee ba ca tir au but ya moom it doxal na waaye laata loolu lépp nag match bi tàngoon na jër ndax Barcelone moo njëkk a mëne Robert Lewandowski moo dugal waaye bi ñu ñëwaatoo ci ñaareelu mi-temps bi doomu France bi di Nabil Fekir moo égalisé match bi jeex ñu dem ca prolongation ba Ansu Fati moo dugal bit bu rëy waaye Betis kat dafa góorgóorlu ba égaliser Loren moo dugal match ba jeexee 2-2 ñu dem ca tir au but Ter Stegen amal ca taxawaay bu ama am solo waaye dugal gañe bi Pedri moo ko dugal loolu la journal bi xam xamle Barcelone googee nag coow la jeexagu fa ba léegi xam ngeen ne président ba fa nekkoon di Bartomeu moom kat bàyyi woon na fa coow lu rëy coow loolee nag sulleeku waat na li ko waral moo di dafa am koo xam ne da doon liggéeyaale ak moom dafa am message boo xam ne waxoon na ko ci ay jamono doon xas Lionel Messi la Pulga message boobee nag polisu Barcelone génne na ko ñoo ngi topp waay si mi ngi tudd Gomes Ponti moom moo yëkkati kàddu yu ñaaw teg ko ci deru Messi loolu nag ñoo ngi koy topp laaj ko ba xam kàddu yooyu mu wax lan moo tax mu wax ko loolu bokkoon na ci li tax Lionel Messi mere waa Barcelone loolu la surnal bi xam le ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa esport Ter Stegen la journal bi fësal ca xët wu njëkk xaw a éero mi de du kenn kudul moom ndax démb dafa doxal bi Betis di jàkkaarloo ak Barcelone doxal na ca match ba te ca penalty yi tamit wane na boppam tax waa Barcelone dem ca final super coupe ba war a jàkkaarloo ak Real de Madrid dimanche match boobee 19h lay door waaye journal bi nee na Barcelone nag ñandu na ba fa ndax mëne na ñaari yoon Betis Betis di égaliser waaye ca cëppaandaw ga ca tiir ubbi ya la ñu teqalikoo loolu la journal bi xam le ñu jugee Esport jël Mundo Deportivo Robert Lewandowski ak Ter Stegen la journal bi fësal ca wu njëkk wa mbégte mi nag du kenn ku dul Ter Stegen ndax génne na ñaari penalti démb ngir Barcelone dem ca finale ba fekki waa Real de Madrid kon fi Real jaar bërki démbu fa la Barcelone jaar démbu ngir dem ca final ba bit yi nga xam ne Barcelone am na ko démbu nag ñaar ñii ñoo ko dugal muy Robert Lewandowski ak Ansu waaye journal bi ñëw na ci waa Real de Madrid nee na nag ndam li nga xam ne am nañu ko ci Valence jural na leen jafe ndax Lucas Vazquez soo moytuwul dina toog weeru lëmm du dugg ci terrain football te Eduardo Camavinga wóoragut mu bokk ca final loolu la journal bi xam xamle. ñu juge Espagne wutali Italie wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport choc bi ñuy xaar ca Italie googee la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa diggante Napoli la ak Juve match boobee dix-neuf heures lay door moo tax journal bi nee na match bii de jar na lépp waaye jamono ji nag ñaari coach yi dañuy làqatu kenn ci ñoom buggul wax yan ndëgg sërëx ngay tegal sa morom kon match boobee tey jii dina tàng jër di dox ci diggante Napoli ak Juve ca stade de Maradona adduna gépp ngi koy xaar waa AS Roma ànd ak di Dybala tamit ñoo ngi ci journal bi démb Coupe d'Italie la ñu doon football Genoa la ñu doon jàkkaar lool am ndam ca mat boobee benn bal ci dara di bala moo dugal bit ba am ca match ba deuxième mi-temps la dugg yeewi Mourinho ànd ak moom dem ca quart de finale Coupe d'Italie ba loolu la surnal bi xam le ñu jugee Corriere dello Sport dem Milan fekk fa la Gazzetta dello Sport moom it choc bi Italie gépp di xaar la fësal ca njëkk wa ñii de ay or lañu kon itali am nañu or loolu la journal bi xamle ñoom ñaar tey dinañu jàkkaarloo doxal ca stade de Maradona jamono ji nag Napoli moo jël pee waaye bu dee waa Juve ànd ak Maximiliano Allegri ñoo jël deuxième li ñu bëgg moo di dëggal seen bopp waaye Napoli tamit dafa bëgg a defaraat toogaayam kon match boobe dina tàng jër bu 19h45 jotee lay door. Sola tamit mi ngi ci surnal bi moom nag doomu Italie la ay jamono doon na football ca Chelsea.